yow salaamaaleykum barke borom Touba dama ni yow yaakaaroon naa ni Van rey na la ci film bu yàgg barke borom Touba ndakate yaa ngi suñu kanam ba nëgëri hey booloo may ñu jàmm booloo dimbaliñ bi jëm sëñ Touba pour man Van Damme rey na la <laughs> ndakate man li may seetaan film bi ndakate booloo déewut booloo ngi suñu kanam <laughs> booloo dalul <laughs> danaa yónniwaat Van Damme mu rey la